Bienvenue sur Salam Vision. ci yàlla dolli ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu ay maqaam yalaawo bismil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla doldinoo ay maqaam yalaawo auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad nabilu mi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman auzu billah bismillah in wala yàlla jërëjëfe borom Tuubaa Xaadimu Rasuul jaraw lakk maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baal muridina mbokku téléspectateur internet yi nga xam ne yéen nañu suivre à travers Salam Vision ñi nga xamante mbégte tey dellusiwaat ci suñu beneen jotaayu xam-xam seen jotaay bi nga xamante ne moom lañ leen di per faj sa jàngoro tey ñu ñëwaat ci beneen numéro seet si suñu jigéen suñu xarit waaye suñu saltige bi soxna Awa Pouy mu sëriñ mu Cheikh Abdoul Karim Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moom sëriñ Touba Khadim Rasoul moom mi nga xam ne suñu borom am na ay dogal yu mu ci jëmmam ji mu doon itam nit koo xamante ne wax dëgg yàlla ci wàllu gisaane da koy def ci anam bu ne waaye tamit doon nit koo xamante ne wax dëgg yàlla nit ko bëri yërmande nit ko baax macha allah rabbi ñu bëgg waxtaanee waat ak moom lenn ci xam-xam bi ñu xamee ni moom sëtub saltige la doon na ko ci ay maamam doon ko ci ay waajuram ba tey ji mu gëstu jiwaat ba ñëw toogaat fii ñu bëgg waxtaanee waat moom lenn rek ci wax dëgg yàlla li nga xam ne mi ngi ciy yëngu bu ñu noppee nag daal di koy tasal tasaare àdduna wërngal këpp kenn ku ci nekk di ñaan yàlla vidéo bi ak jot kàddu gi nga xam ne yéen a koy dégg fu mu fekk waaye ba mu setaan ko rek bu fekkente ni suñu borom dogal na fi ne aajo moo war a faju rek yàlla na ko yàlla booleeg soxna Awa Pouye mu Cheikh Abdoul Karim waaye bu fekkente ni aajo mi tamit narta faju yàlla bu ñu gisante ñoom ñaar ndax moom loolu lay dox loolu lay dund waaye loolu lay wax itam saa su ne ni ñuy def rek dañuy daal di waxtaan ak moom nuyu ko daal di koy bàyyee kàddu gi mu nuyoog askanu Sénégal waaye at nuyoog tam ñi nga xamante ni mooy mboolem internet yi nga xamante ni ñu ngi ñuy tudd ñu ngi ñuy seetaan à travers Salam Vision ci biir YouTube bi kon soxna Awa ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar waaye ñu ngi lay dalalaat ci biir jotaay bi naan salaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Talla maa ngi waa di nuyu askanu Sénégal ak waa diaspora mhm. waa bi réew mi ak waa bitim réew mhm. di leen ñaanal jàmm mhm. waa di ko ñaanal ñëpp daal macha allah di nuyu sama wasila Baye Karim Mbacke Fallilou borom Makarimal Akhlaq ndeysaan waa di nuyu sama yaay mère Fall Fall Njaga Yaram di ko ñaanal yàgg fi lool te waa di ko ñaanal sama sang di ko ñaanal sëñ Muntaxa kilifa diine yëpp kilifa aada yëpp maa ngi leen di ñaanal mhm. nangu ñaan yi yàlla na yàlla defal ci dégg waaye yàlla na ci am yàlla defal ñu ci topp ak barke ci daraja yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye ni tudd nga ko léegi wax dëgg yàlla mu doon kenn koo xam ne moom it ñoo koy ndokkeel di ko siyaar bu baax baax baax di ko jox booleem wàccuwaayam yëpp tey ñaan sama borom guddal fanam te wéral ay ndax wax dëgg yàlla yàggam fi moom am na njëriñ ci askan wi macha allah rabbi waaye soxna awoon ni ñuy def rek mooy ma bëggoon ñu waxtaan tuuti ci wàllu li nga xamante ne mooy seet gi gannaaw bi nga xamante ne ci suñu jotaay yi weesu yëpp waxtaan nañ ci ni mu dikkee ci yow li nga ci daj li nga ci dund. waaye tey jii am na ci façade boo xamante ni nit ñi umpal umpal ñu maanaam ñi lay door a xam xamuñu ko ci yow ndax nee naa leen soxna Awa Pouye seet gi moom da koo mm-hmm. waaye animatrice culturelle la woon. ma bëggoon nga mayaat ñu tuuti ci loolu rek ñu daal di fay dooree waxtaan wi rek may leen ñoom fu ñu foree nopp daal di xuus jëm ca biir incha allah rabbi. waaw ni ko waxee Talla man animatrice culturelle la woon nekkoon naa def leen daan naa def ay reportage mhm. te loolu moom ba léegi. Mhm. dama ko bëgg ba léegi. ndeysaan. waaye lii du du lu ma doon lu du lu ma bëgg. Mhm. mais lu ma doon la. ndeysaan. waaye bu doon sama bëgg-bëgg ak coobaree bi ma xam ne moom laa doon ñaan yàlla mm-hmm. mooy nekk animatrice bay dem ci rajo yi ak télé yi te du doon lii mm-hmm. waaw mais nag bu ñëwee ci yow nag ku sañuta bañ nag sañ a nangu alaakulli àlli mais li ma bëgg mooy na ma nit ñi nangul mm-hmm. lan moo tax nit ñi nanguluñ ma man loolu laa bëgg daal xam lan la waaw des fois da ngay génne ay vidéo nit ñi di wane vidéo yi kaay xool diw di wax wax yu ñaaw wax yooyu day ñëwaat ba ci man ndeysaan nee naa leen ku bëgg xam ndax mën naa wala mënuma solal sa daal nga ñëw ci kër gi. Mm-hmm. ba nga am résultat. Mm-hmm. nga doog a wax. ndeysaan loolu maa leen koy ñaan nag. Mm-hmm. waxkat yi maanaam. ndeysaan. waaw mënta ñàkk waaw fi ne de àdduna moom wax dëgg yàlla moo baax moo baaxoon noonu te moo ni tëddee tamit wax dëgg yàlla ndax neena li may faral di wax saa su ne nee naa fi mu ne euh, euh, nit ku ne am ngay soppe am ngay bañ. waaye fi mu ne bañ ñi dañuy tax saa su ne ngay góorgóorlu di gën a jéem ndax bañ a des ginnaaw te wax dëgg yàlla mooy li ngay wax léegi nii fi mu ne macha allah rabbi te soxna boobu bu ma la déggee baax mbooleem bañ yi dund nga ci ay anecdote yoo xamante ni ndax nit ñëw na ba sa biir kër. Mm-hmm. yor ay yëfam ñëw mm-hmm. bëgg la ko fi tegal. Mm-hmm. te doon mbokkum koo xam ne tey ji mën nañu saw naaw leen ndax ab sëriñ la di yëngu ci wàllu wi nga dund ci yu mel noonu loolu lan nga ñu ci indi tam ci yu mel noonu nga xam ne jot nga ci dund tamaat loolu waaw côté boobu moom dund naa ci lu bëree na Mm-hmm. te dama gisul lu ko fi jar mm-hmm. chaque jour ma ne leen yow mën nga jógal tey na yaa ngi jógal awa puy mm-hmm. wala awa puy a ngi jógal sëriñ diw lan moo leer awa ndax yàlla dina ko yee suba loolu lu jara sóoraale la dëgg yaa ngi xëy ci nit ki nekk ci nit ki te xamoo sunu borom ndax dina la yee ba bar sàq nga yeewoo wala ci kaw àdduna ngay yeewoo. lu leer loolu jara sooraale la. Mm-hmm. parce que nit ki ngay xeex. Mm. mën nga jékki dem bàyyi ko fii moom mu des ci kaw suuf. Mm. yooyu yëpp daal nit ñi war nañ koo sóoraale. Mm-hmm. macha allah mu doon lu am solo wax dëgg yàlla waaye nit ñi fi mu ne xam nga jamono moom mën naa tënk doomu aadama yi ba wax dëgg yàlla ñoom ñëpp li ñu war a defi sax fi ne daanaka dañ dañ koy faral di fàtte ndax fi ne defe naa jaamu yàlla moom ku ko ku dem ba muy génn sam xel defe naa ni kon li leen du a wax macha allah rabbi waaye soxna awa bokk na ci tey ji damay gis soxna awa ci wàllu seet li may gis ci ay kiliyaanam li ci ëpp bitim réew lañ ko waa Sénégal xam nañ ko mm-hmm. waaye tey jii ñi ngay jëflanteel ci wàllu ne secret boo leen wan la wala mbir yi dafa gën a gaaw ci ñoom wala ñaanal ku ne bitim réew ak ku ne Dakar ci réew mi fii dafa bokk. man de yàlla moo ma tiim. Mhm. waa bitim réew ñoo waxal seen bopp. Mhm. ñu ma yow soxna Awa say sara la wallaahi wal kitaab yi. Mhm. ñoom ñoo ko waxal seen bopp. wér na man sarax bu ma la seetalee damay insister pour nga def say sarax. damay jël fooy ak bi bind mhm. li ngay yónnee trente euro bi ngay yónnee bitim réew mhm. say sarax yëpp ci laa koy jënd kon xam nga ne man li may am ci seet ci ci ci yooyu bariwul mhm. waaw ak lu mën a doon nag lu mën a doon sarax yooyu ci laa koy jënd man bu ma lay seetal damay insister pour nga génnee sarax biir réew mi tamit ku may seetal dama lay naan jëlal fooy ak bic nga bind say sarax mhm. waa ñoom mën nañ fi saraxe mhm. mais bitim réew ñoom dañuy am jafe-jafe pour génnee sarax foofu dëgg la te seet boo génnewul sarax it seet ba du am benn njëriñ dëgg parce que sarax yi bloqué say mbir buñ ko gisee rek danga ko war a génnee mhm. waaw macha allah mu doon lu am solo ndax man dama koy faral di wax ne naa fi ne réew mi moom fi ne nit ñi moom seetlu moo leen gën a yomb que génnee maanaam sarax yi nga xam ne mu ne sarax am na ca wet ga. Hmm. loolu tam bëggoon naa nga indi ñu ci tuuti ak leer diggante seet ak sarax. waaw parce que boo xoolee. Hmm. nit ki boo seetloo te génnewoo sarax. Hmm. blocage bi taxoon ngay seetlu. mën na fa nekk ba léegi. waaye bu la soxnaawoo seetalee ne la ah lii de ndabu nangam la génne ko. am na lu mu baaree ci say mbir. boo ko génneewul baaraas boobu ba tey fa ne mhm. sarax amul lu mu mënta dindi sarax amul lu mu mënta fànq mhm. sarax moom amul lu mu mënta fànq waaye sarax moom wax dëgg yàlla lépp lu ma ci gis damay insister pour nit ki def ko mhm. seet ak sarax daal ñoo ànd parce que kuy seetlu rek am na sarax yu taxaw sa seet yoo xam ne war na génn su ko defee say bolokaas dañ mën a dañ ci kàttanu yàlla macha allah mu doon lu am solo mais est-ce que euh, say soxna wa tey euh, nit ki bu seetloo ba pare fi ne ñu génneel ko ay sarax maanaam sarax yooyu moom génnewoo ko est que yow mi ko seetaloon pour génne ba génneloo ko ay sarax yoo fi ne day am dina am effet effet ci yow wala du am benn effet. waaw ci côté maanaam ni ma daan doxalee. Mhm. bu njëkk moo ma doon gën a sonal. Mhm. parce que dama daan xëy di seetal nit ñi. di mhm. seetal nit ñi di seetal nit ñi ba ngoon. may xaar nag ku ne dugal sa xaalis. bu fekkee fukki nit nga seetal. ñeent walla juróom ñoo lay fay mm-hmm. ñi ci des duñ la fay dañ lay dawloo ba mu naax saay mm-hmm. moo tax sama profil boo xoolee passé à la caisse d'abord laa def ñit mm-hmm. ñi dañ ci ree ba sonn ma ne leen man léegi nii lay doxalee ku ma woo daal balaa ma lay seetal da ngay yónnee ba pare ma doog laa seetal noonu daal lay doxalee. kon fi ne ñàkk fay seet seet ñàkk fay seetkat bi seet gim la seetal fi ne tam am na am na am na am na lu muy lu muy def ci ki ki ko doon seet wala. dana def dara ci man mhm. mais ki seetlu ba pare lànk ne du fay ci moom lay ëppee sax mhm. gàllankoor bi ci moom lay ëppee mhm. parce que ñun mbiru rab la ñu yore te mbiru rab moom rab moom du baale déedéet waaw de du baale moom wax dëgg yàlla ko ko xam-xam ne daal ne bu ma seetalee nit ki du ma fay sax soo may woo ma la jël parce que am na ko ma mas a wax ne ma client yi buñ la miinee. Mhm. dootuñu la fay te man loolu laay dund. dëgg la moo tax léegi damay jiital ñu yónnee ma ba pare ma doog seet. moom moom laa tàmbalee ci sama door émission nee naa leen fi ne ku oyof la ku laa biir koo xamante ni wax dëgg yàlla bëri na waa li tax ma wax loolu tam mooy lii ngay wax ni moom laay bëggoon a confirmer ci mhm. njëlbeen te confirmer nga waat ko waaye ba tey buñ ko xoolee soxna wa euh, sarax ñàkk def sarax ci nit ki nga xam ne seetal nañ ko ba sarax yi. Mhm. conséquence. yi nga xam ne moom lay def ci moom ki nga xam ne moom lañ doon seetal fan la mën a yegg ci ban niveau la mën a yegg. waaw parce que ki nga seetal ay saraxam taxaw mu war koo génne te génnewu ko. Mm-hmm. maanaam blocage yaay yokku mais du wàññeeku. Mm-hmm. ci li taxoon muy sa muy seetlu. Mm-hmm. blocage ya mooy yokku waaye du tax mu wàññeeku. ok waaw. blocage buy yokk de moom lu koy wàññeeku gën defe naa ni fi mu ji buñ koy xool buñ koy xool fi ne réew mi bëri na ñoo xam ne seetlu moom moom moom bëgg nañu mën nañ koo fay. mais duñ génne sarax. loolu tam lan moo koy def ci nit ñi sax man dama leen di seetal mhm. mais man duñ ma fay mhm. bu jëkk mhm. mais loo leen wax ci sarax lu mu cher cher dinañ ko dem jëndi génnee ko toog xaar résultat mais ki leen seetal dërëm yaakaar nañ da daal waru waruñu ko koo mën a jox waaw man nag maa mhm. Mhm. mais est-ce ne ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk génne seet bi ci ki seetal fi mu ne tamit euh, wax dëgg yàlla fi mu toll nii bu ñu koy xool ci jamono yi te dégg naa soxna Awa jamono yii yëpp day tëdd ba guddi. Mhm. mu jóg toog di fanaanee seet ba bër seet. lan moo waral loolu ak li ngay seet lan ngay seet ci waxtu woowu noonu parce que aw soxna Awa man xam naa soxna Awa te soxna a afam heure boo xam ne moom la daan seet diggante dix heures onze heures. jàpp six heures ci ngoon tàkku gannaaw tàkku saan. dëgg la parce que boo xoolee man à partir de dix heures laa doon commencé seet. Mhm. arrêté timis. Mhm. bu may seet sax bu ma déggee noddu timis dama koy dagg. Mhm. waaye fan yëpp depuis ñaari weer ba ñett ci ginnaaw. daanaka damay fanaane toog. parce que xeexu baatin bi dafa bëri toog ci sama kaw. waaw xeex baatin bëri na lool ci sama kaw nag. est que ñi ngay def fi mu toll nii ñi nga xam ne ñi ngi ñi ngi lay xeex am nga ci ay mandarga wala ay signes yoo xam ne xam xam nga ñi la koy def. waaw wanuma nag ay mandarga mais damay gis ay jëmm sax. Mm-hmm. waaw damay gis ay jëmm yoo xam ne daal ñu ngi may song. Mm-hmm. guddi gi mun naa yeewu deux heures du matin damay toog ba mm-hmm. lay wan jëmm yooyu mu lay wan fi ne xàmmee xàmmee nga leen wala mas ngaa jëflante ak ñoom wala daal. waaw boo xoolee nag. ci mm-hmm. wàllu jëmm ji yëpp danaa ko gis ba mu des kanam gi. est-ce waaw danaa gis jëmm yi daal jëmm jigéen. Mm-hmm. jëmm góor waaye kanam gi daal ba léegi yàlla wanaguma kanam gi daal. Mm-hmm. seeni kanam. macha allah tey jii naka la soxna Awa Pouye di dundee ci wàllu seet ak njaboot gi mu yor ndax soxna Awa Pouye mi ngi ak njabootam mi ngi ak doom ñii ngi université car macha allah na yàlla yokku leen te gën leen a dëgëral te wéral leen naka naka est tey jii li li li na ci yow fi ne dem ba nekk ci ñoom fi mu toll nii waaw xam naa ne affaire bi ndono la. Mm-hmm. ñoom ñëpp ba ci kee ca néeg ba. Mm-hmm. moom bopp bi daa fees del. baadu. waaw kon xanaa moom bu ñu paree di ma booleeg moom man mu daal di di am nu mu def man boog ma xool ba xam. <laughs> en tout mm-hmm. bopp ba daa fees del. ndeysaan boo xoolee. li ci gën a bari. bu may dal guddi day fekk moom mu fanaan cité. waaw waaw li ci gën a bari. su may dal guddi. fii néegam la moom mm-hmm. man sama néeg waaye fale lay fanaan ak man mm-hmm. fii kenn du fi fanaan mm-hmm. maa fi yendu liggéey ba ngoon ñu tëj ko waaye nangootul dafa abandonné néegam ñëw tëdd sama wet chaque jour nag bu demee cité nag yu bari ci lay jànkonteeg affaire yooyu est que moom kon bokkul fi mu ne ci ñi xam ne dañoo dañoo war a aar seen waajur fi ne bi ci ci ci ci yenn yenn def def def yeeg yu mel noonu. ah en tout naa ne daal baaraas a ngi ci de mm-hmm. moom daal. Mm-hmm. am na ñoo xam ne moom da leen di baare. Mm-hmm. wallahi ginnaaw yàlla ak yonent bi am na ñoo xam ne da leen di baare. waaw te yàlla ko fi yàlla bàyyi nag. allahumma amiin Mm. macha allah en doon na lu doy waar loo xam ne moom il fallait ma laaj question boobu parce que wax dëgg yàlla damay gis suñu toll nii wax dëgg yàlla seetkat wala sëriñ si ñu yu mel noonu moo taxoon ma laaj mais est maanaam fees gi mu fees noonu du ko du ko yàqal am njàngam wala ci li war a dox lépp ci bagage yi. Mm, du ko mm. yàqal dara ci njàngam. te eh, xam naa ne ci sama doom yu góor yi am na ci koo xam ne tamit moom di la jël mm-hmm. loolu moom leer na ma am na ci sama doom yi góor yi koo xam ne moom dina dina jël mm-hmm. Mm-hmm. mais ñoom naka nga leen di pour bu ñu yéegee ci benn niveau bi ndax tey jii fi sa bu ñu ko xoolee wàllu seet wàllu sëriñ wàllu ñaan ak yu mel noonu yegg na ci benn niveau boo xamante ni doy na waar ñi ko mën ñi ngi ciy dugg ñi waaye ko mënul sax ñi ngi ciy nekk di tappale di dóor ak def yu mel noonu naka ngay waajalee ñoom seen avenir ñoom ci seen bopp fi mu toll nii ak wàll wi wallahi wal kitaabi toog ak nit ne ko jàngal ma nu ñuy seetee mhm. man maa jël sama seet di seet te lu ma ci wax nit nga gis ko mhm. te ñoom xam naa ne buñ ci yeggee it noonu la ñuy def mhm. waaw musuma toog ak nit ne ko lii lan la lii lan la nan la ñuy jàngee seet nan la ñuy waxee lii wala lii lan lay signifier wallahi mu bu fekkee mës naa koo def ak nit kuy seet bu gisee vidéo bi na ci commentaire non loolu moom man am naa lu ma ci xam ndax nee naa koo xamante ni animatrice culturelle boo nekk ci rajo yi di animé ka di fi yëf bi ko bis bi ko seet wuyu see dem na ba téye ay loxom téye ay tànkam te loolu defe naa ni preuve la boo xamante ni fi mu toll nii li olof naan wéet di gis boo ko ci war leen ñu gis ñu xam ne fi mu ne say loxo yow am na loo xamante ni maanaam bi seet yegsee ci yow nga bañ moom dara la ko dara la koo def nga war leen ko ñu gis ko naka la naka la demee woon fi bi mu lay def nii mu am na feebar yu bari yuñ ma ne daal moom la mhm. mais maa dem ba xam ne daal affaire rab bokk na ci mhm. mooy doole bi daal ok mhm. moom fi mu toll nii ban pexe ban pexe lañ mën a ànd ci àndandoo yooyu nga xam ne ñu ngi koy tudd si bàngoor guddeeg bëccëg muy rab ak yeneen yi mu àndal rab daal neexal sarax rek waaye seen sarax mettiwul diisul waaw waaw faaw nga leen ni neexal daal allah kulli leen moom neexal gi daal moo la ci mën a muccal moom. Mm-hmm, a mm-hmm. Mm-hmm. mu doon loo am solo wax dëgg yàlla soxna Awa Pouye mu Cheikh Abdoul Karim Mbacke mu Sëñ Fall moom la ñuy waxtaanee lii ci jotaayu xam-xam bi nga xamante ne mooy faj sa jàngoro waaye soxna Awa fi ne wax nga ko léegi li lay téye guddi gi ba doon nelaw ngay fanaane seet ba bët set. mais bi ngay seet guddi gi li ngay gis lan lan ngay gis loo xam ne mën nga koo xam naa ne lépp moom doo ko wax wala ah am na ci yoo xam doo ko tudd waaye lan nga ñu mën a misaal ci tolluwaayu jamono ak tolluwaayu réew mi ak dundinu doomu aadama yi ci biir ci biir jamono fi mu réew mi tollu sax. Mhm. bëggoon naa cee dugg tuuti muy wàllu politique bi. Mhm. wàllu politique bi xam naa ne moom. Mhm. muy maire ba. ak kay xajoo. ku ci oyof bopp si deux mille vingt deux bii mhm. du baax ci yow hmm? ku ci mën a jóg daal nga jóg aar sa bopp defaru dëgg mhm. ku ko mën na ko def mhm. waaye ku ci oyof bopp dëgg dëgg dinaa émission man yow ñu wax ci ku ci oyof du baax si yow <laughs> loolu de doy wax ndax bëri naa bëri na version yu ma ci dégg waaye version yëpp daal xam naa ni malheur la boo xamante ne nii bu jëm ci ñoom la ndax xëccoo beeg yu ni mel ba tey jii fi mu ne malheur moom ku ne xam na ni moom mënta ñàkk ndax suñu borom moom dogalam kenn mënu cee mucc waaye fi mu ne am ñàkkul ni xanaa après am na ay sarax yoo xam ne war na mën a fànk wala tey ji sarax yoo xamante ne war na ko pop mbooleem koo xam ne yaa ngi yaa ngi xëccoo ndomba tànk loolu noonu nga fexe koo def ngir mën a mucc ndax nag defe naa ne ah, mucc moom moom la ñëpp gën a bëgg fi mu toll ndax jàmm moom kenn mosu koo doole ma yàlla wan fan yi sax ku mag la mu ngi ci mairie toog mm-hmm. mais nag du ma wax tur bi. Mhm. te xam naa ne day toogaat nag. Mhm. bu jàllee di ñëw fii ma ne la déw la. Mhm. waaw bëgguma nag wax tur bi mais am na ku ma yàlla fan wan fan yi na ku ma yàlla wan wax naa ko sax sama doom bi nee naa ko diw dina faluwaat mu ne ma ne ko yàlla ma ko wan léegi doon junj ci ban mairie la nekk wala ban gox la dëkkee côté Médina bi la nag Médina côté Medina bi la. waa mhm. mais boo xoolee. Mhm. képp koo xam ne yaa ngi xëccoo. Mhm. wala yaa ngi toog. nañu ut mbiskit bu doy. ndox mu sedd bu doy. guro yu xonk yu doy. ñu génnee ko sarax te musul. waaw. loolu daal dina leen defal jàmm dina indi dina indi tawfeex. yi daal na bëri ndox mu sedd bi na bëri lool ñu ñaan ci seen jàmm ak seen jàmm yaram. guro yi nag ñu muslu bépp ay. ñu muslu ci daal génnee ko muñ mhm. ko defee rek dana baax incha allah waaye ku ci oyof bopp daal gën a la defal sa rek mhm. Mhm. mu doon lu am solo wax dëgg yàlla soxna Naw Pouye ci ci sarax boobu nga xam ne wax dëgg yàlla tegtal nga ko askan wi kenn ku ne daal ciy bàyyi xel waaye bokk na ci fi mu toll nii soxna Naw euh, euh, lii nga xamante ne mooy mooy mooy sarax yi dafa am nit ku nekk lu mu war di saraxe pour wàllu rawaan bi nga xam ne moom la àndal ndax ñu dañ koy waxee àndandoo yi waaye nit ku nekk parce que damay dégg ñu naan kii kat wax dëgg yàlla euh, rawaanam ci ci ci ci ndox la nekk kii rawaanam ci ngelaw la kii rawaanam ci safara la nekk kii rawaanam tam ci suuf la nekk mu bëggoon ñoom ñeent ñëpp kenn ku ci ne nga junj ñu tuuti tam kenn ku ne lan mooy sarax bi nga xam ne moom mooy mooy warteef bi mu war di génne ci doomu aadama mm-hmm. waaw ci wàllu ngelaw koo xam ne rawaanam ngelaw la. Mm-hmm. maanaam lu mel ni gerte ak dugub mhm. waa loolu mën nañ ko di saraxe mhm. waa ki rawanam nekk ci ndox mhm. kooku mën na di génne ay saraxu ndox saraxu meew waa ki nga xam ne rawaanam suuf la lépp loo xam ne ñu ngi koy récolter si biir suuf si lu mel ni pom de terre ay pataas ay carotte loolu lay dajale def si leket saraxe waa ki ki nekk ci ngelawam nekk ci rawaanam nekk ci safara nag ci rawaanam nekk nag ay sondeel ay këriñ mhm. yooyu yëpp daal sarax bu ko war la masha allah mhm, yooyu yëpp sarax bu ko war la daal mu doon lu am solo ay almet yooyu yëpp daal mun nañ ko di saraxe koy saraxe mhm. njëriñu poftan ak yéen sëriñ si lal la poftan di jëriñ doomu adama bi lan la koy fànkal ak yan conséquence la ko mën a indil waa ci wàllu poftan nag am na secteur yu bari yuñ ciy liggéey même pofton bu wow bii mhm. pofton bu wow banqaas bu wow nii nga fekk mu daanu ci suuf mhm. boo ko jëlee suuroo ko saytaane dalay abal mhm. waaw xob bu tooy bi am na ñu ciy xaatim di sangu am na saafara yoo xam ne danga koy boole pofton yooyu yëpp daal mun na dafa bari njëriñ daal mm, dafa bari njariñ ku saytaane jàpp rek reen bu banqaas bu wow bi branche bu wow wadd mhm. boo ko foree nga suuroo ko sànni sa armoire ku ne nga sànni ci biir néeg bi mhm. dara jàmm rek waaw kon daal paftan moom fi ne njëriñam moo ëpp loram waaw njëriñam moo gën a bari foofu sax lor bi mhm. macha allah amati na solo soxna Awa Pouye xam naa ne waxtu waa ngi xëccu jëm ci jeex waaye daal xam naa rek fi ne du ñu dem tam te te laaj ñu la fi ne euh, euh, naka naka naka la soxna Awa Pouye gisee tey jii euh, dee yu bëri yi ci biir réew mi ñu ngi gis ay borom kër yuy rey seenu njaboot xam nga bu ñu demee ba borom kër bu góor daanaka jël xaru ba noppi reyaale ak njabootam. dee yi bëri loolu ci biir réew mi accident yeeg yu ni mel tey jii. est-ce que loolu fi ne lu naturel la wala jàpp nga ne am na ay def-def wala ay sacrifice wala yu yu yu yu sabab loolu. waaw ci côté accident yi mm-hmm. boo xoolee accident bu am nag ñu ne jinne mais gaw mën a yëpp jinne nga koy def am na ci ñoo xam ne dañuy neexale sax am permis mm-hmm. te duñu mën a dawal waaw waaw loolu am na mm-hmm. ñoo xam ne dañuy neexale am permis te ñu mën a dawal loolu seen bakkan waruñu koo yemale ak lenn lenn lenn waaw mais tey di nga gis ku def soog ñu ne jënne la walla ñu ne seytaane la jinne la saytaane jinne yi daal ñooy reye mm-hmm. loolu daal la wax mais am na ñoo xam ne ñu ngi am tey seen permis mm-hmm. dañuy neexale walla ñu fay loo xam ne mooy loolu ñu jël seen permis fekk mokkaluñu sax dawal mm-hmm. waaw ñi mokkalul dawal ñoo gën a bari tey ñu mokkal dawal côté boobu tam nañ ci wax te bàyyi affaire u jinne yi waaw dëgg dëgg. loolu tam mi ngi ci daal. Mhm. Mhm. macha allah. tey bu ñu doon wax ni fi mu ne daanaka wax dëgg yàlla bu xoolee ni nga ko waxee dafay bëri loo xam ne heure bu jógee rek ñu naan jinne yeeg rab yëpp nangam nangam nangam te waaye dañuy fàttali fi mu toll nii wax dëgg yàlla am loo xam ne doo mhm. fexe doomu aadama bi moo koy sabab ndax mooy ba mokkal ko ko yor sa oto di taxaw te kanam kanam yi ba def ay jéeye yoo xam ne après ñu koy jiñ rab yi ak jinne yi. lii daal ma la wax mhm. buñ ko mënoon gëstu ñu bari ñi ngi dawal tey mokkaluñu oto te ñi ngi ak seeni kayit mhm. kayit boo leen tàllal sax mun nañ la ko jox mais dañuy jël risque rek di dawal mhm. waaye yooyu yëpp daal lu jara moytu dëgg dëgg mu doon loo am solo tey ji soxna Awa Paye waaw li nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy ci li nga xam ne mu ngi koy yëngu ndax soxna Awa Paye soxna Awa mi ngi gannaaw seet gi am na ci yeneen yu def ndax xamoon naa soxna Awa mu daan sàngat ay doomu aadama Euh, ci ay njaqaak ay yoo xamante ni ay yëfi mag la ci sunguf ak ci alxuraan ak ci yëpp est-ce que tey ji soxna Awa mi ngi nekk ci loolu ba tey wala fi mu ne naka lay naka lay dundee loolu. waaw boo xoolee sangatu rab mi ngi fi sangatu bayre sangatu cat. Hmm. waaw yooyu yëpp maa ngi koy def sangatu ubbeeku. Hmm. lii nga gis dama ciy jàpp nit. Hmm. secteur yu bari yoo xam ne nag samay kilifa ñoo ma ko jox. yëkkati loolu ñu xool ko. ak buteelu lem bii. lii. Mhm. koo ci téye. Mhm. da lay maanaam dafa mel ni lem la ak ak ak ak ak lan. waaw lem scotch. scotch ak lii kilifa gu mag nag moo ma jox. Mhm. mi ngi nii tàppale wu te ku ma ci jàppal naa la. Ah, di nga am koo ci jàppal. fi mu toll yàlla ndax fi noonu. <laughs> Ah, boobu daal mi ngi noonu. Mm. ku fi indil nee leen góor ñi nag du leen jàppal. Ah. parce que loo ñëw tey nga indi Anta jàppal la suba nga dem ci keneen mu jàppal la mbeen mm-hmm. ginnaaw suba nga dem ci keneen mu jàppal la uray mm-hmm. mais jigéen ju ñëw ne ma jàppal ma rek dangay xam ne yow dangaa bëgg damay xam ne kii moom dëgg la ci moom. mais est-ce que ngay wax nii est-ce que solidarité woo tamit fi ne sax est-ce que solidarité woo fi mu toll nii ñu ah. bëgg a jàppale jigéen ñi rek. en tout am na ci góor ñoo xam ne nag du ñëpp. Mm-hmm. mais daal nee naa leen góor ñi. ku fi léeg-léeg damay bañ. parce mën nga jàpp nit ki mu topp la ba pare nga koy souffrirloo. Mm-hmm. di ànd ak keneen di ko mm-hmm. bàyyi. Mm-hmm. yooyu yëpp daal mu ngi doo comprendre. dëgg la de. macha allah mu doon lu am solo mais est-ce que tey jii soxna aw fi mu toll nii wax dëgg yàlla buñ ko xoolee ba xool tey jii gannaaw waxtu bi xëccu na ci jeex. lan ak lan la soxna awa loo xamante ni ku ci am jaaxle boo ut see soxna aw ko yàlla mën na la ci defal sutura baloo la saafaraw waaw boo xoolee ci wàllu faru rab mhm. wàllu coro rab mhm. wàllu jaaro mhm. jaaro bi tam ñu koy liggéey waaw wàllu ubbeeku yëpp daal am na ci yu bari yoo xam ne daal maa ngi koy liggéey macha allah mais bi may doog a tàmbali seet rek laa doon def mais dama am ay kilifa yu ma baaxee ay secret yu bari waaw loolu laa bëgg ñëpp xam ko ku ci weddi nag ñëwal ba sa aajo fajowul nga doog a dem weddi mais lépp lu ñu waxaat day ñëwaat ba ci biir kër gi fekkaat ma fi mm-hmm. diw munu la day toppandoo mer tàkkoo lu ne daal ñu ngi koy wax <laughs> waaye lii ku ma xam-xam sama yi xam ne toppandoo ma kenn mm-hmm. waaw waaw ne wax dëgg yàlla doon nga ko waaye bi ko doonee ba noppi fi mu ne mu sëf la boppam nga ëlbatikuwaat gëstu am ay kilifa yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi la féete ginnaaw di la taxawu kon loolee moom wax dëgg yàlla loo lu ñu tappale mais fi mu toll nii que euh, te li tax nga fi mu ne ko balaa nit ki di weddi na ñëw toog ba jëflante ak man te gisu ci résultat mu door a weddi mm. loolu base bi lan la dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw parce que boo xoolee am na ñoo xam ne nit woo na ma ba bitim réew mm-hmm. ne ma sant yàlla li ma doon defaral lépp Mhm. sa waaw lépp alhamdulilah du benn du ñaar sax mhm. wallaahi yàlla mooma tiim dëgg la nit daf may woo ne ma man ba ma laalee say garab rek lañ ma woo entretien ba ma dalee liggéey yàgg na mhm. nit woo na ma ne ma bu ma toppoon waxu nit ñi duñ fi yegg. samay mbir yëpp sotti na. Mhm. ma ne ko yàlla moo ci teg loxo nag. Mhm. lépp lu ma liggéey. Mhm. bu ci sunu borom tegee loxo rek day sotti. bu ci tegul loxo nag ñu xam ne sunu borom a ci tegul loxo. waaye amaguma ci gàcce de te maa ngi liggéey nag. alhamdulilah waaw yàlla xeeb dolli yal na yàlla xeeb dolli yal yàlla gën a dëgëral taxawaay mu doon du am solo. mbokk internet yi nga xamante ne yéen ñuy teewlu dégg ngeen ko soxna Awa Pouye mu Cheikh Abdoul Karim Mbacké mu Serigne Fallou wax dëgg yàlla moom lañ doon waxtaanal ci wàllu wi ne wax dëgg yàlla ci ay ko xoolee rek jëmmam dalay wax ci lu bare bare yi nga xamante ne tey ji dina ko lancé askanu Sénégal waaye plus particulièrement yi nga xam ne ñu ngi koy teewlu ci jamono bi toll ñu door a jeexal jotaay bi macha allah boo xoolee li may dénk maanaam jeunesse bi sax lay gën a waxal mm-hmm. nañu moytu tey toog seeni kër mm-hmm. bañ a topp politique yi ak xeex yi ak sànnante xeer yi mm-hmm. sànnante lacrymogène yi te seeni moto chaque jour ma wax ci moto yi nag deux roues yi bu ñuy dawal deux nañuy sol casque waaw dawal ngay dugg ci foo xam ne naka yàlla tere mun nga daje ak lu lay lor ku ciy dawal daal na nga sol sa kas waaw ku ci dawal daal solo sa kas mhm. te événement yi ñu jëm si mooy élection yii mhm. ku ci mën a moytu bu ku ne demoon liggéey wàcc ñëw toog sa kër mhm. yaakaar naa xeex du am dëgg dëgg waaye buñ ko deful li ci kanam ah niñ ko gisee baaxul de baaxul dara dëgg dëgg kon daal fi ne nag kenn ku ne fi ne yem fa mu war a yem nekk ci la mu war a nekk dëgg la bàyyi mbedd meeg yu yuy desaan kàddu gu mujj gi lu muy doon kon xanaa di sant ñëpp di la mhm. sant di la gërëm. Mhm. di sant sama xarit sama lépp soxna Mariama si. ndeysaan sëñ Babacar. nee naa leen élément Serigne Babacar nga. surtout mhm. maam El Hadj Malick. munoo wallaay ndeysaan ndax yewen na ci li muy def. bu ko neexoon ne man seetkat laa. kii seetkat la du ko dugal ci sama bopp. waaye nit ku goree ngi noonu. gor pire mooy soxna Mariama si. du noppi nag di ko wax. kaay soxna Awa defal lii kaay soxna Awa ba yow mi toog mm-hmm. moo ma booleeg yow ndeysaan waaw ginnaaw yàlla ak yonent bi moo tax ma xam la mm-hmm. kon loolu ñàkk ki ñaanam mm-hmm. bu ñëpp meloon ni moom rek sant yàlla néew ma nag kenn i ñaan na mais nañu a roy ci soxna Mariama si ñun ñëpp ñu nekk benn lii géej la ku ñëw da ngay dem kenn mënu koo jeexal Mhm. jërëjëf soxna Awa Pouy mu Cheikh Abdou Karim Mbacké mu Sëñ Fallou dégg ngeen ko mbooleem waxtaan yoo xam ne waxtaan nañ ko moom dégg ngeen li mu ñaan itam waaye dégg ngeen itam message bi nga xam ne dénkaane na ko plus particulièrement la jeunesse sénégalaise ou bien la jeunesse de la nation donc kon li ñuy def rek mooy ñaanal ko yàlla sama borom taxawu ko doole guddal fanam gën a wéral ay cëram ba mbooleem yéene yi nga xamante ne naanal na ko askan bi sama borom defal ko ci lu kawe a baax mbooleem internet yi nga ne ñu ngi ñuy suivre à travers Salam Vision ci biir YouTube bi kenn ku ci ne di la ñaanal yàlla la nga xamante ne mooy sa bëgg-bëgg di say di say mébét yàlla suñu borom bi dul jeexal dara yal na yàlla jàppandal lépp ci dara ji Seydunaa ne wax dëgg yàlla ñoo ñu meññ ci biir réew mi waaye itam sant bu baax a baax saa su ne waaye itam di gërëm ñëpp di sant ñëpp di jox ñëpp dig daje insha allahu rabbi taala ci beneen jotaay ak seen émission bi nga xamante ne mooy faj sa jàngoro jërë ngeen jëf wasalaam ci barkeb say xi faddilu buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaawo bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaawo bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaawo Bienvenue sur Salam Vision